juróom-ñaari waxtu jot na sëkk ci Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen ba noppi tey ci altine li gën a fees ci bopp xibaar yi koppar yu takk yi nga xam ne nag ARTP doon na ko laaj groupe Walfadjri waxtaan doxoon na tey si diggante ñaari kuréel yooyee muy groupe Walfadjri ak ñi di waa ARTP suba nag bu mi di tegalee fanweeri simili la ñuy dajawaat boobaa la ñuy wax li ruusee ci moom leen daje ak wànne nuyu mujjee ki gëtam ca Touba Mbacké Samba Boy ya fa doon toj am na ñu ci teg loxo toll nañu ci fukki doomi aadama ñu fekk ci ñoom ngànnaay yu bari ak oto yoo xam ne dañu koo sàcc ci denc ñëw ci biir xibaar yi ca diwaanu Louga ñuy yore mairie ba doon nañu waxtaan ci ban anam la ñuy yore xaas ba nga xam ni moom la ñuy saytu waaye nag coowal suuf moo fa gën a fees ndax juróom benn fukki terrain ak juróom la ñu toppee maire ba di Moustapha Diop nii séddale ba daal dalagul seen xel moom it indi na ci ay leeral denc te xibaar bitim réew lii moo gën a fees ci bopp xibaar ci kanam tuuti ñu faram fàcce ko ci Walf TV leexu jamono dalee na jàmm ci xibaar yi ci yaatal dañu koy tàmbalee ci koppar yu sakkan yi nga xam ni waa ARTP ñu ngi koy laaj groupe Walfadjri tax na nag am ndaje daanaka lu toll ci ñeenti waxtu tey ji ci kilifa yi yore banqas boobee di ARTP waaye tamit njiitu groupe Walfadjri ak ñi mu àndaloon ginnaaw ba nag tënk nañu mbir mi ba suba bu ñu tolloo ci midi ba mu fa tegal fanweeri simili bu ñu waxtaanaatee ba génn la ñuy xam mbir ma fu mu mujje xadisi moo ñuy jukki li ñu jot waxtaane tey ji ak waa ARTP dafa mel ni jamono ji mun nañ cee am xel mu rafet ni mun naa saafarawu ndaxte tey ci lundi bi kii di ministre Mbagnick Ndiaye daal dina dalal ci ay diwaanam kii di directeur général ARTP président directeur général groupe Walfadjri daal di fa teew ak délégation bu am doole bu ñu génnee ci waxtaan bi nga xamante ne toll woon na ci ñetti waxtu kii di Yakham Mbaye mi ngi xamal ni déggoo mi ngi waaj a am. ministre Mbagnick Ndiaye ak euh, man ak euh, directeur général ARTP. Euh, recevoir nañu PDG group euh, groupe fajiri euh, waxtaan nañ lu yàgg presque ñetti waxtu waxtaan boo xam ni te purement technique relativement ak mbébét bu président Sidi Lamine am ci taxawaayu fajiri loo xam ni def ko siq ak état ci mbirum koppar li am solo mooy ci waxtaan bi ñuy waxtaan moom leeral nañu loo xam ni bi mu ko leeralee ba pare xam na ni sax moom leerul woon ci ñun bu baax loolu ñu waxtaan si euh, ba xam ni lu jata lu jara leeral la parce que dafa am solo tey nguuru président Macky Sall moo fi nekk mais Sénégal continuité la li am solo la ñuy xam loolu di mbebetam mi ngi suqeekoo ci atum 2011 biñ ko xoolaatee bu baax tamit am na luñ ci war a jàngataat ba leeral ko parce que dafa am lu ci xaw lëndëm loolu incha allahu rabbi fii ak 24 heures c'est-à-dire suba incha allah ci midi 30 ci côté ARTP am na gëstu yu ñuy def pour xoolaat ko génnee ci explication yi dinañ dajewaat ak président euh, Sidi Lamine Niass ak ministre Mbagnick Ndiaye ak DG ARTP ñu tojaat loolu xool ko léegi nag matukaay buñ ci war a jël ah ñu jël ko ci ci kàttanu yàlla. ci li nga xamante ne dafa dukkee ci seen waxtaan ndax dañoo nar a xaar ba yëf yi daal di sotti. ci beneen xibaar ñu wutali nag tubaa Mbacké foofu commissaire ba fa nekk am na lu toll ci fukki doom yaadama ñuy def katu ñaawteef yi ñoo daan toj dëkk ba sàcc saa su ne fekk nañ ci ñoom ay ngànnaay yu bari waaye ay oto ñu teewlu ko moom commissaire Mamadou Mbacké dang ak suñu nataango Mamadou Matar Sarr. am benn groupe boo xam ne ay Samba Boy ñoom ñoo nekkoon euh, fii ci Touba di dajj kër yi donk guddi lañuy jóg. Euh, dem dajji dañuy dugg ci kër yi sàcc ay télévision écran plat ndax loolu moo gënoon nekk ñoom seen dañuy dem ci boutique aussi mais écran plat yi lañ gënoon na ñoom ciblé euh, dañoo am seen biir nag koo xam ne moom maçon la donc nga xam ni euh, arrache-clou bi moom ci lay dajjee fenêtre yi donc buy dajji fenêtre yi nit yu bari duñ yëg sax ni fenêtre bi dajjiku na ñu dugg ci kër yi sàcc sàcc téléviseurs yi buñ ko sàccee am na chauffeur boo xam ni taxi toujours moom la ñuy àndal donc moom mooy jël écran télévision yi ñu yóbbu ko dem jaay ko euh, ñenn ñi nag euh, fii lañ leen jàppee euh, Touba ñeneen ñu jàppe leen Mbour ndax mànd bi dañ doon nekk Touba di fi di yëngu léeg-léeg ñu dem Mbour ay fan yëngu fa donc di di jaabante waaw donc ñu leen di wër nag ba mujj leen gis teg teg leen loxo. bi ñu leen tegee loxo ci lañ gis aussi kër yu bari yoo xam ni dajjoon nañ ko euh, télévision yoo xam ni fekk nañ ko ci ñoom ak euh, matériel ak ay armes lu mel ni yi lu mel ni ay raskulu euh, ak arme ndax am na ñoo xam ni koo xam ne dafa yoroon arme di attaqué ñeneen parce que dafa soupçonné woon ni ñu c'est ay ay collaborateurs la collaborateurs de police donc ñu jàpp leen mu nekk une dizaine de personnes teewul di commissaire bu euh, Touba ma Mamadou Mbacke Diagne doon addu ci fukk sambabo yi ñu teg loxo ñu ñoo doon sàcc gox ba euh, di toj fekk lañ ci ñoom ay na yi ñu daan sondale askan bi waaye ay oto ak géttub xar euh, bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Matar Sarr ñu wutali beneen gox waxtaan dafa leneen muy naka diwaanu Louga foofa dañ doon waxtaan ñoom conseil yi nekk ca boll mairie ba doon wax nag koppar yi nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo ci at mi muy budget ba waaye leneen moo ca rax muy coowal suuf ndax juróom fukki teere ak juróom Moustapha Diop moom la bëgg a séddale di meeru te ànd aguñ ca faaw mu leeral leen ba bari naag te ba Omar Kayra ci reportage. coow li xumboon lool ci jamono ji nga xam ne ñoo ngi doon amal vote budget conseil municipal bu Louga. bokk na ci lu jur coow li mu di wàllum foncier bi rawatina suuf sa nga xam ne ISRA moo ko moomoon ñenn ñi ne Moustapha Diop dañ ko cee jox ay terrain yu bari ginnaaw ba société bi jëlee dogal tuxu kër Momar Sarr. conseil municipal moo war a jël responsabilité am terrain ISRA yi nga xam ni conseil mus euh, en tout cas Louga ko may ñu wax ci fii lu leer ni fii tere yi ndàngam la fii lañ koy jëmee lii lañ ciy def. bu fekkee ni danoo jox waa kër Momar Sarr jox seen conseil municipal bu fekkee loolu am na c'est avéré nañ ko jox conseil yi en tout cas bari na coow njaay mi ci am ñu ngi koy dégg. gannaaw laaj yi nag lii moo nekk tontool maire bu Louga. ba ma ñëw Moustapha Diop am nga temps de terrain mais bu doon Moustapha Diop rek citoyen euh, citoyen simple lambda ci dëkk bi <laughs> Amar kenn du la woon ne la kay am nga quota fi parce que citoyen lambda nga ne ko goo maire ku mu neex nga dem sa chef de centre nga vérifier 65 terrain man dama ne du ma jël terrain man parce que du ma jël jox ñee bàyyi ñee ku ngeen nangoo ngeen bàyyi moom man ma jël ko su ma ko jëlee ngeen jox ma autorisation ma defee ko ni ma ko bëggee mais askan ñoo am priorité. mu di nag tontu loo xamante nii dafa mel ni doyul ki nga xam ne moo di Amar Thiam bokk ci conseil municipal yi nga xam ne ñoo soulevé woon débat bi. tey nangu na ni jox nañ ko quatre soixante cinq terrain mais lu dëppoowul ak ñun investigation yi ñu defoon que quatre vingt six tey laaj bi ñu njëkk laaj mooy ban chiffre chiffre moo baax entre ñaari chiffres yooyu. doyunu beneen affaire bi mooy conseil bi. ku def ci lan ku def ci lan ñun li ñu proposé woon yàgg na mooy que terrain yooyu tey Louga am na problème espace am na yeneen projet yu nu war a dugal nañu jël terrain yooyu mu abrité projet yooyu nga xam ni Louga daf ko daf ko dafa am problème espace communal bi tey atteindre nañ ko depuis yàgg na. waaye nag bu ñu sukkandikoo ci adjoint au maire Djibi Diallo terrain yi maire bu Louga moo ko moom te moom moo am dogal jox ku ko neex. xëy na xam ne Moussa mooy maire dëkk bi benn pàcc maanaam juróom benn fukki terrain ak juróom ne ko lii yoo lañ ko baaxe comme ni ma baaxee yeneen maire yi ak yeneen kilifa nag ci bi dëkk bi ak ci biir région bi. Moustapha mën na tey en tant que maire xool doomu aadama boo xam ni ngi ci commune bi soxla ko gën ko soxla ak conseil municipal dem may ko kooku parce que doomu lu la kooku yoon may na ko droit may na ko léeg légalement. conseil municipal bu Louga doon amal votu budget bu année 2017 bi xaalis boo xamante ni toll na ci lu ëpp un milliard ci suñuy koppar mu di nag ndaje moo xamante ni nervi yi bari woon nañ fa lool ndax ñoom ñoo ngi tasaara woon fépp ci biir mairie bi Oumar Kayre Louga Walfadjri Omar Kayre grand parti ca diwaanu Guédiawaye ñaar ci seeni militant di Mor Diaw ak ku ñuy wax Serigne Diop tegoon nañu leen loxo gannaaw bu ñu dañoo yor ay euh, kayit yoo xam ne dañuy wane ni Guédiawaye la ñu dëkk te alors euh, dëkkuñu fa mujjee nañu leen a bàyyi nag ñu ñibbi seen i kër euh, ubbi nañ ci ab lànk dañ ci teewluwaat Théodore Semedo nekkal ñu ca boobule diwaan ca diwaanu Kaolack lew nañu seen ba ñuy daloo seen jumaa ji ci àjjuma ji ñu weesu am na ku fa yëkkati kàddu bokkee ci parti démocratique sénégalais Baba Diop lay wuyoo moom ci réew bi guute gi mu nekkee kii di PDG groupe Walfadjri Sidy Lamine Niass waxoon na ko de loxo yi ñu koy teg dara wóoru ci kenn gëmu koon waaye tey nag lu ñu mën a teg seen i gët la wala ñu mën koo làmb ak seen loxo moom Baba Diop ak suñu naataango Alassane Ba. mais na nu ko re reconnaître na inauguration bi mën naa dem beneen allure bi mu doon jël mooy allure vraiment ñëw pour liggéey pour développement de ce pays mais li ñu sentir mooy deful loo xam ni dafay euh, dugg dans le sens de développer Kaolack parce wax na fi ay milliards yu bari gisuñ dara aujourd'hui li ñu am li ñu intéressé mooy que Kaolack xam ne amuñu président li bu ñëw pour jàppale waa Kaolack dañu am président boo xam day ñëw pour def la politique ku ne euh, Sidy Lamine Niass Ablaye Wade euh, presse bi mu fi nekk ci ndënd yi avant 2012 lañ doon wax ne euh, Sidy Lamine dafa contre Ablaye Wade moom moo ko daaneel tey bi Ablaye Wade daan dafa taxaw ne Ablaye Wade moo ko gënal Macky Sall tey bu ñu demee ba jamono dox ba mu gis ne Sénégal dañu toll gidd yoo xam la moo xoon demb ku ma am ndey ku ma amul ndey làq sa doom doo doomu jaambur moo fi nekk ñu jàpp ne aujourd'hui li am soo dëgg-dëgg mooy Sénégal delluwaat ne ndekete kañ forom pour mu toppatoo euh, njëriñu réew mi deful loolu et kan mooy le pardon c'est le Sénégal qui sera le pardon donc may ñaan lépp képp Sénégalais boo xam ne yaa ngi dëkk Sénégal nga xam ne aujourd'hui nous avons quelqu'un boo xam ne sëriñu daara yi doon nañu waxtaan di assemblée générale te juwaadu njaareem fa la njëkkatee seen i kàddu nag di ñaawlu luwaa bi nga xam ne nguurug Sénégal teg na ko ci anam bi ñu yoree ay daara ni moom defagul li ko war kon nag bu mu leen rëddal yoon wa ñuy jaar waroon naa tabax ay daara yu bari bu boobaa ñu bëgg a seen njàngum arab ñu leen cay tàggat kenn ca ñoom ci reportage Mamadou Matar Sarr lay leere nguuru Sénégal balaa muy taxawal ay projet de loi naan kii mën naa ubbi daara kële mënu ko dafa war a def li ko war ba noppi maanaam ubbi ay école arab fépp ci Sénégal ndax xale yi mën a am fu ñu jàngee di xalaatu sëriñ daara yi nekkee ci Jurbel kon nañ tàpp alxuraan te dimbali jàngate ko alxuraan yi te may leen jàmm nag waaye nit ki doone ko defaluma la ba far te la may jàmm projet de loi yi ñuy tëral ak yooyu yëpp su fekkoon lañu war def def nañ ko projet bi dox na bu yàgg waaye dañ war def lañ deful fañ war a jaari jaaruñ fa nañ jaar ci sëriñ daara yi wax ak ñoom lañ bëggal ñu xam ko bëggal alxuraan bëgg ñu topp ko boobaa projet bi la waa bi suñ ko dëralee dana mën a dox defalagu daara dara àll bi foo dem tabax nañ fa foo dem rek tabax nañ fa amul fenn foo xam ne tabaxuñ fa école alxuraan daara alxuraan boo xam ne gouvernement bi moo ko fondation tabax ko waxuma ne amul waaye gisaguñ ko ñun. ñoom seriñ daara yi gis ne dañoo nasaxal daara ak njàngum alxuraan te tey jii Sénégal mënul seqi benn jéego dem ca kanam tànk xoolaatuñ seen doxalin. waaye mënuñoo am économique bu baax mënuñoo am jikko yu baax mënuñoo am développement te buñ gannaaw bu njëkk al xam gannaawale alxuraan fee yëkkati alxuraan yëkkati ñooy alxuraan jàpp alxuraan jàppale ñooy alxuraan lañ bëgg ci réew mi du mën a am mukk. ñu taxawaay dafa xaw a des ci wàllu yar. valeur yu bari yoo xam ne xame woon nañ ñu ko wàññiku na liñ ciy dund fan yi doy na sëkk suñu xooloon dama naan at mii bu ñu xoolee senegal li ñu fiy gis ci deret violence violence ak yam jegeel yépp dangay sax yéemu bu dee accident yi ñu bari dañ jàpp ne la ca ëpp ñàkkub yar la bu dee agression yi moom kenn du ci nattable. ci fàttali nag ñoom sëriñ daar yi dañ doon amal ndajem diine mu yaa ca Jurbel Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr dañuy fekk wala Alassane Ba jiwoon ca diwaanu Fatick la foofa nag juróom-ñetti fukki at yoo xam ni sécurité yi am nañu ko ci seen kuréel googu doon nañu ko màggal ndaje ma nag ponk yi bari waxtaan nañ koy rawatina ci atum ren mi ci njiital ki leen jiite muy inspecteur ba ñu teewlu ko reportage bés yu ñu jagleel éclaireur ak secourisme africain ren ji Kaffrine lañ ko amalee foofee ca péyib ndukkumaan la ñu amalee xew-xew yi ay téeméeri ndaw jóge fu nekk ci dëkk yi ne ci réew mi fekkee si seen ndaje mi lee la méthode scout ñoom nag euh, li leen di jàngal ci méthode scout euh, lañ ko jëlee bi nga xamante ni euh, mu ngi basé wu ci ñetti mbir boo xamante ni da leen di tàggat ci wàllub social ci wàllub euh, diine ak ci li nga xamante ni mooy wàllu nit ku nekk ak boppam fu mu toll nii ñu ngi tàggat euh, ay xale ngir euh, ëllëgu réew mi ñoom ñooñee ku nekk si boppam nañ la tàggat ba nga xam sa bopp ngir nga mën a jëriñ sa bopp waaye itamit jëriñ sa réew. ci atum 2017 ji inspecteur régional de la jeunesse moom moo jiitee ubbiteeg bés yi. nous pouvons dire yàgg naa di fekkee ay ndaje waaye sawar naa lool ci fekk si ci ñi nga xamante ni ñooy euh, mouvement de foulard rawatina nag euh, ñi nga xamante ni ñoo di euh, éclaireurs yi ndaxte bokk ñen ci ñi nga xamante ni la ñuy def lépp teg nañ ko ci yoon ndaxte li ñuy def yépp njëriñ la ci xale yi itamit njëriñ la ci réew mi. secourisme sénégalais am na juróom-ñetti fukki at at wu ne éclaireur yu Sénégal di ko baaxantal ci ñaari fan fépp ci biir réew mi. Kaffrine alxasan Ba Walfadjri. dellu si nañu ndakaaru di tënk na xibaar bitim réew ca Mali la gën a fese ay doomi aadama faatooti nañu fa ak ay cong yu am eh, ca gawo kii di Aïcha Jaxate lañ ci àndal. door xibaar yi bitim réew si fële ca diwaanu Mali foofee nag ak attaque gu métti moom moo am ba juróomi doomu aadama jot cee ñàkk seen bakken ci camp ba nekkee ca Agasongo nekkee ca région bu Gao ay jàmmaarloo yu métti nag ñoom ñoo am ci diggante ña fare ca armée bi ak it tamit jihadis ya nekkee ca diwaan boobule ñi ñi def nag bilee attaque daanaka jotaguñ leen teg ba tey tamit xamaguñu ñan lañu ca noonu yi tamit gis nañ ci ñaari militaire yu ñàkk seen bakken ñetti doonub civil yu nekkoon ca diwaan boobule ci noonu yi jot nañoo sàcc seen ñaari oto oto ak itamit ay doomu aadama yu bëri ci jot a jëlee ay gaañu gaañu ci ab fàttaliku ndaw rek fële ca diwaanu Mali nag lu ëpp juróomi at daanaka jaaree ko ca atum 2012 ba tey ay rebelle touareg ñoom ñoo nekkee ci diwaan boobu lelal fa seenub nënd lëkkaloo ko groupe djihadiste fare ca Al-Qaïda groupe djihadiste nag ngir xeex leen waa France doon nañ ab intervention militaire ca diwaan boobule nga xam ne atum 2013 ba tey ñu ngi koy wéyal waaye saas yi ñuy àddoo jeexagul mbir mu doy waar moo am ca diwaanu Niger ab procès boo xam ne dañ koo teg ci ndoddi opposant bi di Hama amadu ma ñu jàpp ne dafa jël ay doomu aadama maanaam ay tout tànk di leen jaay ab trafic ay xale la ñu daal di wax ca diwaanu Nigéria loole nag yóbbu ko ba ca parc ga ba fi mu toll nii dool nañ ko ab atu kaso goo xam ne dana ko tëdd procès bi nag door na niki tey ci altine gi yem ak fukki fan ak ñett ci weeru mars ca diwaanu ñame ay avocat am nag teew nañu waaye fas yéene wuñ cee mbir ma nag mujjee lalub tànk boobu boobulee daanaka nangu nañ ab àq ak yelleefam yépp gannaaw ci tekki tekkaaralu avocat yooyu lu ëpp juróomi at du exercer lii di métier ci wàllu politique waaye itamit doxalinu réew mi du ci xam lenn cour ba nag daan naa retranché waat ñu daal di ko dóor ab atu mbir ba nag doon na lu doy waar ndax lu tolloo ko ñaar fukki doomu aadama yoo xamante ni seen lijjaa saam na solo lool ci diwaanu Nigéria jot na leen topp ci mbir moomu moomulee mën nañ ci nemmeeku ka nekkoon jëwriñ ay homme d'affaires ay officier wu armée bi ak itamit seeni soxna ñu jeexalee ko xibaar ba tuuro ca diwaanu Écosse foofay nag seen premier ministre bi di Nicolas Sturgeon moom nag moo daal di fësal ci ab compte Twitter am ne nag dafa bëgg dem référendum ngir wax dëkkub Écosse boobule ndax dinañ bokk ci Brexit bi waaw wala déet. boobulee annonce nag mu ngi ñëw ci moment bi nga xamante ni Grande-Bretagne fas yéene naa door li di Brexit bi maanaam bañ a bokkateeg Union européenne lenn ci noonu nag la Nicolas yëkkati ay kàddu ma bamtu ko muy xamle ne nag moom du jël ab mesure boo xamante ni ab dëkkam nanguwuñu ko. ndax nag mu fas yéene jàmmaarloog ñi nga xam te ñoom ñoo di waa Royaume-Uni ci ab référendum boo xamante ni da koy tëgg askan wi ñoom ñooy taamu ndax dañuy topp kopparu Royaume-Uni boobule wala ñu daal di ànd ak waa Union européenne ba tey moom nag ci noonee la sukkandiku ngir daal di jébbal mbir mi ca parlement ba ñu daal di ko defum référendum ci noonee rek la ñu mën a xam ndax askan wi d'accord nañ ceem déet Theresa May nag bi mu jotee xamle ni bokk na si dara référendum boobule nekk lu dul xàjjale ñaari gox yooyu lii waaye nag ki nga xam ni moom moo ëmb travailliste britannique yi di Jeremy euh, Corbyn moom nag nee na mbir mi partem dina ci taxaw su fekkente ne parlement bi euh, nangu nañu ko vote fii la ñuy jeexalee li ñu amoon yéen a leen ko ci xibaar ci Walf TV leeku jamono juróom-ñetti waxtu Ramatulaay Ba jéen mooy ñëwaat ci leen xibaar ci nasaraan lay doon moo koy yaatal ñu jaajëfal ajatul aw joom Njaay Jaay mi féete woon ci wàllu réalisation bi euh, kii di Cheikh Tidiane a fare woon ci wàllu xarale gi jërë ngeen jëf ci teewul bi jàmm ak jàmm